ah xanaa fa yéene taxawaat beneen taxawaay bañ xam ne rek liñ doon bañ mi ngi nii ñëw na loolu lii moom lii rek lañ doon bañ moo moo tax ñu nekkoon ci comme nag taxawaay bi am na ah mooy taxaw rek fas yéene fii mu ne nii mobiliser nañ matériel yëpp pour ñu ñëw bu lépp fayee ñu fas yéene nag yi lii lépp pour mën a seet beneen yoon moo tax ñu nekk boobu ba léegi fi mu ne nii may wax ak yow matériel yëpp pour moom ñu ngi sur place euh, euh, bil yi ñëw nañ camions yi ñëw nañ. pour que ñu fa yéene daal dara du fi des lii lépp man fee jóg ba ñi nga xam ne seeni i centre commercial danañ mën a am fu fuñ taxaw defar ko ndax nii boo ko bàyyee nii doo xam naka la ñuy mën a taxawee sax ba defaraat waaw loolu lépp daal ñu ngi ci. waaw xam nga jéyee moom bu ñëwee jéyee la rek yal nañu ci yàlla musal ah euh, jéyee moom bu ñëwee amul commerçant bi amul dara ndax dana laal mairie bi dana laal commerçant yi dana laal keneen ku dugg bi sax. ndax ki yoroon daan dimbali nit ñi nga xam ne mara daytaal yi ñoo yoroon yenn dépenses yi ñu ñàkk nañ mairie bi la mu fa doon ci ñu nekk en période de campagne maanaam campagne yu lan fay patente yi ñu nekk ci lii am dana am joxe ba joxe bu mën di ca loolu li ci daan e, ëpp leen dana dem ci état bi waaye am na ci loo xam ne ci maire bi la jëm kon lu mel nii boo amee dañuy daal di jàpp ne euh, catastrophe la boo xam ne dugg na ci waaye yëfi sunu borom la ñu dégg lépp ci loxoy sunu borom tabaaraka wa taala xanaam sant yàlla rek delloo lépp ci loxoy sunu borom delloowaat lépp ci yàlla ca xam ne lompoñ lépp tey bu fekkoon ñu faatu duñ ko fekk kon nag nga xam ne lépp yëfi sunu borom la ci am na ñeneen ñu tëdd ci guñ leen kom am na ñu ko ëppale woon tëdd tey mënuñoo jóg fañ dem am na ñoo xam ne ñu ci biir bàmmeel am na loolu ñu jàppee ni lii sunu borom moo indi mbir nam mu mbas mi la indee lii ca mënu ci daal kon ñu jàpp ni jëfi sunu borom la max nettatlu ko nag metti na di ñaan nag yàlla indilaat leen leneen lu ko gën ndax yàlla mun na am la tax mu def lii am na leneen lu gën lu mu leen leen cen euh, sànq dégg nañ si kàddu préfet mu ne euh, li leen gën sonal mooy maanaam xat-xat bi mais est-ce que ñii xat-xat loo fii pare ngeen tey ji bu liy jàllee ngeen jàmmaar la ñoom ba nga xamante ne ëllëg euh, marché bi képp ku fi dugg di am maanaam yoon bu baax ba doo xat-xat incha allah loolu defoon nañ ko boo fàttali ko baar yi yëpp dégagé woon nañ ko ba fii libéré woon ñëpp mën a jaar ni mu jaare mais ak Touba ni muy demee ak yërëm nit ñeeg kenn ku ne xam ne ñàkk li ñàkk liggéey gi am feeg waral noonu ñu bàyyi woon nit ñi di dugaat waaye nag lii moom day njàngat lay amaat meneen ndax ñëpp jëlee woon nañ ba yót leen marché yóbbu leen ci benn marché bu ñu waroon a nekk ñoom ñëpp marché boobee ñu ne woon ñoo ko fa bàyyi del si bii ah kon nag lii amaat na dana ci jëlaat ay mesures du ma ne nag dana faju ndax Touba moom jël fi dara mu daal di faju jafe na ndax sañ yi dañoo bëri waaye daal lañ ci mën danañ ko def ba ñëpp xam ne def nañ mais gisoon na est-ce que est-ce que nekkul négociation boobu wala jàpp yërmande yërmande moo waral lii tey. yërmande yërmande moom du fi jóg ndax boo demee ca taxi yërmande tax këyit oto bu amutub këyit di daw cib dëkk Touba rek nga ko mën a amee loolu yërmande la loolee fa indi loolu moo fi indi li indi fi kon nag daal li ñu ci mën daal mooy jéem leen a seen nu ñu leen euh, jàppalewaat xoolaat leen yóbbuwaat leen fenn fas yéene ñu nekk fa ñu seet luñ ci man